nanan bobak ñu bayyi ko mu nuyo fi ci sen sen al maktoum tv ah, nanan ma lay nuyu ma bay la nga présenter wa assalamu alaykum rahmatullah mohammed lamine sis ma ngi lay nuyu ma sha Allah di la ziaré di nuyu wa maktoum ah, tv yep ma sha Allah di len ziaré ah ma sha Allah am mbekté lool ci tay bi ah, voilà merci beaucoup euh, abdallah ñu xam ko ci le centre du peuple ma sha Allah euh, ñu gis né tay def nga déplacement bu am solo ndax yaangi jugé bandar ñeu féké ci programme pap alindo bi lan mo waral lool waaw macha allah di am mbégte ndax Pape Alioune damay wax ni avant tout maa ngi moom ay frère lañu te loolu lay wax saa su ne bi programme bi teroo mu woo téléphone ni ma chanteur du peuple macha allah ndaanaa ni laay sargal te nag ndaanaa ni da ci am yaay te muy maman Cheyba kon nag bis bi sa bis la loolu moom moo waral macha allah ma xëy tey ñëw ci programme bi macha allah. waaye lan nga gisee programme bi. waa programme bi macha allah di sant yàlla rek ndax wax naa ko ko nee naa lii nga def ñun ñëpp nga ko defal tey ji ndax ku ci ne tey bëggoon na ko def kon incha allah programme bi dafay réussir te ku gis lii nga xam ne kon sant yàlla rek la te liggéey rek moom moo am solo waaye ànd rek moom moo am solo te ku xool yi xam ne tey artistes yëpp ànd macha allah jàppale Pape Alioune Ndoye macha allah. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf